30 si c'est jii 24 juin euh, réunion bi euh, formation ben euh, ONG au niveau Union européenne dafa organiser ben formation bo xamantene pour former des jeunes yi nga xamantene ni ñoo nekk ci diaspora bi Italie pour ñu nek ay techniciens li nga xamantene ci walu panneau solaire lay doon te technicien panneau solaire képp ndaw koo xamante vraiment jall nga ci formation ba réussir ko di nga ci mëna jariñ au Sénégal ndaw ñu fa nekk di nga si mën a jariñ sa bopp aussi tamit te loolu it di nga si mën a aussi tamit si sa wàllu dund léegi formation à partir de 24 juin si 20 heures la eh, réunion bi di en zoom réunion bi ku réunion bi na ma 351 613 03 30 bu au niveau Sénégal da 0039 def 351 613 03 30 bu ko defee yow mën nga ah, boo nekkee Sénégal am nga doom bu nekk Italie wala am nga frère bu nekk Italie wala benn sœur nga jox ngeen jox ko suma numéro mu woo ma tey jii xam naa temps bi dafa gàtt nag parce que depuis démb lañ ma ko lañ ma ko waroon a envoyé lañ ma waroon a envoyé affaire bi waxtaan seeg ak man mais tey la yàlla dogal tey suba laa ko jot a jot parce que dama amoon temps bu gàtt moo tax sax dugaluma ko. léegi réunion bi dina nekk à partir de vingt képp koo xamante ni bëgg nga si participer dinañ la jox lien bi nga dugg si réunion bi déglu nga xool formation bi nan lay demee si li nga xam ni moo niveau nekk au niveau diaspora Italie maa ngi leen di nuyu di leen jaar seen xarit Mouhamadou Moussa xam ni euh, man sama soxla mooy intérêt diaspora bi ñu bàyyi xel aussi dañ ñu war a bàyyi xel ñun diaspora bi. suñu état yi aussi tamit jéem a taxaw suñu papa yi nga xam te plus de soixante ans am nañ ko plus de soixante dix ans ñi ngi si Italie def seen dund yëpp ba nga xamante ne amatuñu benn moyen boo xamante ni lu leen accompagner pour mën a ñibbi Sénégal ñu bàyyi leen xel. beneen bi si aussi tamit ñuy wax tamit suñu niveau consulat yi ñoom it ñu fekkente ni mën nañu am ay assistance sociale au niveau jeunes yi nga xamante ni wala mag ñi nga xamante ni dañuy dem ba mënatuñu ñibbi ñu xool déglu leen. ñëw wala des fois ay jeunes yoo xamante ne dañuy dem ba amatuñu benn moyen sonn vraiment amatuñu xaalis amatuñu fu ñu dugg amatuñu fu ñu dënn fu ñu fu ñu dëkk dañuy am problème boo xamante ne dañuy dem seen cons seen nouveau consulat mais duñu leen recevoir mais ndaw yooyu dañuy wax seen problème bu fekkente ne suñu état mën na leen accompagner parce que des fois di nga dem ba nekk si réew mu nekk nga nekk si difficulté bëgg a ñibbi doo xam ban moyen ngay jaar léegi nañ consulat yi ubbi seen bunt di déglu ndaw ñi di leen déglu di leen déglu di leen bàyyi xel.

de nuyu Italie gi yëpp képp fu doomu Sénégal nekk ngay jeune maa ngi lay tàllal loxo si benn projet bu ñu naan Diaspora 3D 2SA boo xam te man may administrateur bi di nekk au niveau national Sénégal au niveau fii Italie aussi ñu ngi si liggéey liggéey bu rafete rafet te di ñaan yàlla di si tàllal loxo ndaw ñëpp ñu ñëw jàpp si liggéey ngir intérêt li nga xam te moom mooy diaspora bi je vous remercie de tout cœur merci seen xarit Mouhamadou Moustapha Diagne